Covid. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla ñu ngi ñu ngi si clients yi di góorgóorlu quoi tabaski bi moom daan na gën a dox nii mais nit moom boo fekkee rek da ngay sant yàlla quoi. ñu fàttali tamit ki dara li nekk ci ndar toll na si ñetti junne xar yu fi yokk ren jóge ca Mauritanie jóg yi nag toll ci fukki junne juróom ak fanweeri. leneen lu soxal bi la jotaayu xibaar moo di euh, mouvement d'humeur maanaam ñaxtuk euh, technicien yi nga xam ne ñoo nekk ak liggéeykat yu ministère bi ñu dénk wàllum euh, mbay mi ak équipement rural ñoom nag fukki fan la ñu décrété ne kon dañuy banque seen yoxo ba noppit soobu ci yàpp xiifal liggéeykat ya la ñuy sabab ñu soobu ci li nga xam ne moom mooy xiifal boobee moo di la nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel affectation yi nga xam ne teg ñu ko fen day neex rek njiit la mu yóbbu leen feneen anam ga ñuy liggéey it na leen lool bëgg ñu taxaw leen sa ñu woote ak gànnaaw taskatu xibaar yi sa jam ñaajo ñu ànd seen Cheikh Ahmed Tidiane Seck Mansour Ndiaye. fukki fan ya ñu dakk liggéey boole ca tàmbalit grève de la faim technicien ak liggéeykat yu ministère de l' agriculture ak équipement rural ñoom nag amuñu benn sikki sàkk ci gën a ñoŋal li di seen i pexe yi xeex. ñun travailleurs yi dañoo nekk di laaj suñu àq ak suñu yelleef muy lan indemnité yoo xamante ni depuis 1960 ñu ngi koy laaj loolu nag bi mu amee njëkke na. benn série d' affectation jël ma man mii ak sama cinq collègues yoo xamante ni c' est des responsables du mu jël leen affecté leen. tey nag ginnaaw bi ñu defee benn sorti wax fa lu jëm ci wàllu semence yu bon yi wax fa lu jëm ci wàllu engrais yi nga xamante ni doyul. dafa jóge jël décision ni comme nag man damay wax. dina ma affecté. ñoom liggéeykat yi bootu ci ministère bu ñu dénk wàllub mbay bi eh, woote jëmale ci seeni naataango organisation syndicale waaye it daal di interpellé ki nga xam ne moo di njiitu réew mi ma Macky Sall. grève de la faim boobu duñ ci yem dañuy paralyser système bi yëpp dañuy décréter une grève. illimité président de la la ñu interpellé directement mu jël secteur bi en main parce que crise moo fi am. mer gi nag ànd ak coow jib ci njëlbeenu tabaski bii nar a defu diir laata partie yi nga xam ne ñoo séq crise bi di dem bay toog ci taabal ngir mën a amal ay diisoo. Birahim mu di technicien travailleur yu nekk sa ministère de l' agriculture et de léquipement équipement rural gis nga li ñuy euh, sàkku ñu euh, jàppale si ne nag jàmbat lu yàggalate ba fii kenn faalew leen. mais euh, Mame Mbaye xam nga le problème qui se Sénégal mooy chaque fois dañ koy wax autorité yi ñuy digge lu ñuy def ñuy digge lu ñuy mën également ça permet bu fekkee ne am na langage de vérité bu ñuy tenir seen i liggéeykat ci secteur bu mën a doon. yenn extrême yi duñ fi àgg extrême nag weesuwul xam nga magum jëmm kilifa bu demee ba ne dafay xiifal grève de la faim parce que boobu dem na ci euh, lijjanti na wax na waxtaan na ba mujjee ci grève de la faim ça veut dire donc ñoom seen ñaxtu lu leen yitteel la mais li ñuy wax ñaxtu euh, ci ñi nga xam ñoom ñooy ay liggéeykat yu nekk ci euh, wàllug agriculture tey seen ministre moo leen war a gestu ndax lan lay sàkku heure supplémentaire ñu fay leen ko mais c'est un droit ndax euh, lu jëm ci wàllug liggéeykat bi la mu liggéey nga koy fay mais bu yokkee ay heure ba def heure supplémentaire lépp pour njëriñal askan wi mais la nga ko war a fay fay ko ko bu fekkee ni mënoo ko fay bu mu def heure supplémentaire mais li ëpp importance mooy nañuy wax dëgg ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeykat yi ba nga xamee doo leen dikk ñaata yoon lañ fi wax euh, signé nañu ay protocole d'accord 2014 2015 2000 nangam te chaque année ce sont les mêmes revendications qui reviennent ça veut donc dañuy signé lenn déggoo ko waxtaan ko ba dakkal grève de la faim bi wala yenn grève yi ndax kaay ma xamal la fi léegi ay fan léegi avant ñuy mat seen 10 jours ñu ne ni autorité bi ñëw na waxtaan ak ñoom dakkal nañu en attendant suspendre nañu grève de la faim bi après mu nekkaat un éternel recommencement parce que li ngeen di revendiquer tey lu ñuy revendiquer tey bu subaa moom la ñuy revendiquer waat dans un an moom la ñuy revendiquer alors que loolu warul dox ci yoon ci ci euh, réew boo xamee ni dañ jàpp ni euh, donte tout ne va pas très bien mais au moins y a un minimum boo xamee ni war nañ ko def il ne faut pas que ñuy persister euh, di wax nit ñi loo xam ne du dëgg wala di dig nit loo xam ne du dëgg ndax finalité bi lii lay doon ñu di jaxtu que tout simplement ans leen waxoon ne ni nangam daañu leen ko defal bu ñu toogee gisuñu ko mënuñu def leneen lu dul nekk ci grève de la faim wala di rek ay euh, euh, suspension travail ak yeneen mu di grève boo nga xam ne mënul ñàkk ay euh, impact ci li nga xam ne moom mooy mbay mi fii ñu toll ndax bu ñu fàtte ne bu ñu amee yenn semence certifié yi ñoom ci boppam technicien yi ñoo koy war a mën a valider saytu ko ba noppi daal ñu koy jox baykat yi kon nag dina impacté dina xaw a laal li nga xam ne moo dem ci wàllu mbay mi suñu réew mais euh, xam nga wax ji Mame Mbaye moo di Sénégal mooy dëkk bi nga xam ne ak euh, ak yelleefu liggéeykat euh, faalewuñ ko te fu ñu toll dañ koy salfaañe parce que mënoo am ay liggéeykat ñu nekk ci benn kuréel lu ci mel ni ministère <coughs> mu am li nga xam ne ay affectation arbitraire la parce que nit ki wax na loo xam te ne nii dafa dénoncer justement li nga xam ne moom moo am wala ŋàbbinu kilifa gi ñu jël la yóbbu la feneen Euh, moo am ñu jël la tamit dàq la ci anam goo xam ne teguwul yoon wala tamit li ci gën a doy moo di ne ñoom ñi nga xam ne souvent ñoom ñooy peut-être on dira le euh, dernier maillon de la chaine mu di ñooy gën a def liggéey bu am solo ñoom nañuy gën a ñàkkal fu la léegi nag loolu mooy indi les entreprises étrangères bu ñu fi ñëwee tamit mais nan mu gis ñuy doxalee suñuy doom ñun suñu réew bu ñu leen joxul gëdd mais looloo tax les ouvriers keneen ku mënti doon seen ak ak seen yelleef dañ leen di koy salfaañe boole ci di leen exploité exploité boo xam ni foo takk foo ko takk fu ne weesu ko heure bu leen neex heure bu leen neex dàq mel ni ku yor seen benn morceau bu fobee rek donc loolu dafa nekk loo xam ne lu ñu war a xeex la tey jii nii les acquis des travailleurs ku mu mënti doon da ko war a respecté et ñoom les travailleurs aussi war nañ